alayhi mi nga xam ne moo waral coow bi ndax bu dul woon moom mu ñaaw donc ñu ngi sant bu baax di ñaan yàlla mu taas ñu ci barkeem yàlla gën a yokk ay leeram moom mi nga xam ne moo mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne mooy moom la yàlla yónni ci ñun moom la yàlla bi ñu rusee yi tamit ci lu bari ndax doomu adama lëj na lëj goo xam ne nii bu yàlla amutoon ku muy seet dina métti trop sax ndax yàlla cay jamono daawul négocier ku def loo war te def da def lim la war a def xaaratul ba nga dee léegi nag ku di ki Seydina Muhammad sallallahu alayhi tax na nit ñi am jàmm di mën a ne ci àdduna di dëngal di dëngal ba faatu yàlla soo a lijjanti say biir waaw donc ñi ngi wax ne rek ñun ay jullit lañu bokk ci famille jullit nekk ci réew réewum jullit boo xam ne nii lislaam daf fi am doole donc lépp lu laal lislaam ñun dañ ci bokk dañ ci war a wax rawatina nag bu fekkee da bokk ci njabooti ñi nga xam ne ñoo taxawal diine ci Sénégal kooku devoir la nga di ci wax saa su ne ñu di ko sant yàlla bu baax di wax sénégalais yépp ne li nga xam ne moo xew du lu bees lu ñuy ñaawlu la lu ñuy naqarlu la ndax àdduna yàlla daf ko sàkk sàkk ko ay diine mi yu bari diine yi yépp diine yi ci yàlla la jóge ñun jullit ba yàlla ne lakkum diinikum wala diini boobu lañ commencé di respecté képp ku nekk ci diine boo nekk ñu jox la sa cër bàyyee la ak sa diine am ak yow cohésion ak rapport yu rafet yu civilisé xam ne yàlla moo sàkk mooy dogal moom mi war a faj bu fajul kenn warta faj ndax moom rek moom moo habilité a à à décider kan moo nekk ci dëgg ak ku nekkul ci dëgg li am solo rek mooy ku ci nekk diine ji nga bokk la mu laaj nga def ko bu ëllëgee yàlla mooy àtte moo xam ki ne ci dëgg moo xam ku nekkul ci dëgg ndax jullit yaatu na diine islaam yaatu na bari na ñuy mbubboo jullit te fekk li jullit laaj yépp duñ ci def dara li yàlla tere bawuñ ko li mu bëgg nekkuñ ci kooku nag bu ñëwee tudd am Moustapha wala am Babacar wala leneen ne jullit laa loolu lu mu def kooku lu mu def rek moom la engagé moom la concerné parce que boo nee jullit laa rek da war a tënku ci euh, les règlements de l'islam boo nekkul jullit nag sa yoon nekku ci waroo cee def waroo cee wax ndax sa yoon nekku ci ça ne vous concerne donc ñuy wax rek le petit Macron que àdduna bi dafa changé les africains dañoo am léegi information dañoo xam léegi àdduna muy doxee parce que bu njëkk ba xëy na euh, ci benn cercle lañ nekkoon rek euh, xamuñu woon li xew yu bëri duñ ko mën a comprendre mais nag léegi les africains ont voyagé dem nañ ci université yi gën a mag ci àdduna bi am nañ ay diplômes yi gën a mag ci àdduna bi jàng nañ xam-xam yi gën a mag ci àdduna bi ñu ngi utiliser seen cerveau comme ni ko àdduna bi yëpp di utiliser donc boo mënee taxaw di wax yenn yi hmm, je pense que vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris l'islam existait pendant des siècles des siècles booba say maamaati maam sax judduwuñu et l'islam a été toujours combattu Malheureusement pour ces combattants-là, ils n'ont jamais eu gain de cause. L'islam est encore ici, plus fort, plus existant. Donc je pense que li gën a rafet ce qui est plus sage mooy Macron que nga xam ne yow mënoo fi judd démb gën ñoo xam diine islam gën ñoo xam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën ñoo nekk ci yoon parce que jàpp nga ni yow li nga nekk yoon la mais respect mi ngi ak ak ak ak droit mi ngi commencé ci fi nga fi keneen ki bosam yam foofu la sa bos commencé tant que frôlé woo euh, espace nit ki rek lu la neex mën nga ko def ndax loolu yow la concerné mais boo demee ba jéggi sa tànk dugg ci espace nit ki yaa ngi commencé violer ses droits te je pense que vous en France liberté ngeen wax égalité ak ay yooyu mais yooyu dafa am na ko tënk mooy le respect envers les autres ni ñu respecter le christianisme respecte ko yeneen diine yi nga xam ne yàlla moo ko sàkk du nit moo ko créé yàlla ci bopp moo ko sàkk noonu ngeen waree am obligation pour respecter l'islam avec ses prophètes hmm, avec son prophète Eh, si si si érudit mooy ñi nga xam ni mooy gannaaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñoom ñoo ko fi nekkaloon di liggéey ci l'islam di wane rafetaayu l'islam l'islam est une religion de paix de solidarité eh, l'islam a toujours été ainsi donc c'est pas aujourd'hui qu'on veut nous présenter un islam eh, différent de l'islam du passé Parce que l'islam reste l'islam. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouvel testament ou bien de modification. Le Coran reste intact. Depuis qu'il est Coran, il n'y a jamais eu de modification. Il n'y a pas de l'islam moderne. L'islam reste l'islam. Donc, vous devez respecter cette religion ainsi. Comme vous n'êtes pas des musulmans, ça ne vous intéresse pas comment fonctionne Parce que nu ki qui avions accepté d'être des musulmans, nous sommes obligés de se conformer aux lois et règles de l'islam. Qui n'est pas musulman, ça ne l'intéresse pas. Ce ne sont pas ses affaires. Maintenant, partout où tu vas, tu trouves des brebis foo mën di dem ci àdduna bi secteur bu mu mën a doon da fa fekk ñoo xam ne dañuy rax ci booloo ni i simis dans le groupe pour faire leurs besoins personnels, pour, faire, pour défendre leurs intérêts personnels. Donc je pense que il faut bien distinguer ceux qui sont dans l'islam et respectent les règles et les lois de l'islam et ceux qui sont dans l'islam et profitent de cette religion pour leur intérêt personnel, pour régler des business personnels. on ne peut pas juger une religion par rapport à quelqu'un ou bien un groupe de personnes qui font de n'importe quoi boo xoolee la Bible la vraie Bible et le Coran sont presque conformes ce qui est interdit dans l'islam est interdit dans la Bible ce qui est autorisé dans l'islam est autorisé dans la Bible Donc je pense qu'il y a seulement interprétation, ce sont les êtres humains qui sont venus pour essayer de modifier, essayer de changer les textes pour leur intérêt personnel. Mais la religion musulmane et la religion chrétienne font bloc autour pour interdire ou bien accepter tout ce qui est acceptable, interdit tout ce qui n'est pas euh, accepté. Donc, il faut que Macron apprenne à respecter la masse. Ça ne veut pas dire que tu t'appelles Mustapha ou bien tu es musulman, que tu respectes les règles de l'islam. C'est ça le problème. Il faut que vous distinguez. Il y des musulmans des soi-disant musulmans, comme il y a des soi-disant chrétiens, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui ne respectent pas les règles du, du, du christianisme, qui, n'acceptent pas l'autorité du pape. presque christianisme, il y de, de, de, gens qui sont nés chrétiens et qui ne reconnaissent pas cette religion, qui ne reconnaissent pas euh, le pape. Ça existe partout. Il gens qui font du n'importe quoi au nom de d'une religion ou bien d'un groupe de personnes. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut que vous acceptez et vous essayez de, de, de, de, de bien expliquer vos pensées tout en se basant que ce n'est pas tous les musulmans qui sont hors la loi. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont hors la loi. Dans le christianisme comme dans la religion musulmane, il y a des, il y a des brebis galères. Il y a des gens qui sont dedans et qui font du n'importe quoi. L'islam est une religion de paix sociale. L'islam est une religion de paix sociale. Et a toujours été ainsi. Donc pourquoi aujourd'hui vous voulez inventer des problèmes, créer des problèmes inutiles En France, il y a des milliers de Français qui sont musulmans. Ils vivent dans l'harmonie, dans la tranquillité. Ils ne dérangent personne. Pourquoi moi, musulman, je dois modifier mon comportement, je dois essayer de modifier les textes de, de, de, du Coran pour pouvoir vous plaire. Non. Chacun reste dans sa religion et on essaie de vivre en harmonie. Chacun respecte les limites. C'est ça que vous devriez dire aux Français. Chaque Français doit respecter sa religion et respecter la religion des autres. Parce que chacun a une limite. Sinon, on n'est plus en République démocratique. Donc, si vous acceptez d'être des chrétiens et mener votre christianisme comme vous voulez, vous devez aussi accepter notre religion et, respecter comment on le vit. Parce que ça ne concerne que nous, ça ne concerne pas les, les chrétiens ou bien les athées. L'islam concerne seulement ceux qui, des, qui acceptent d'être des musulmans. Parce que si tu veux, tu peux sortir de l'islam demain. Hein? Tu, chacun est libre de partir. Mais tant que tu es dans l'islam, tu dois respecter les règles de l'islam et respecter les autres aussi. Parce que personne n'a le monopole de la vérité. yàlla rek moo xam ki am dëgg ki ne ci dëgg ak ku nekku ci dëgg ndax doomu aadama dafa lëndëm li nekk ci biiram kenn mënu koo xam ko du subhaanahu taala nit mën na woote dara ba fës ca alors que am na yeneen objectif derrière sa tête donc il faut que vous essayez de distinguer et éviter de généraliser éviter de généraliser parce que day indi seulement des informations indi incompréhension inutile donc je pense que président Macron le monde a changé les gens sont beaucoup plus éveillés l'information est beaucoup plus accessible. On ne peut plus gouverner ce monde selon les lobbies, les clans. Non, c'est révolu. Maintenant, il faut qu'on vive ensemble dans le respect mutuel. Si on veut que ce monde devienne un arbre de paix, il faut qu'on essaie de respecter aussi les autres. la religion musulmane est une religion de paix et la religion a toujours été ainsi. Personne ne peut changer un trait, un, point ou bien une virgule dans les textes de l'islam. Nous n'allons pas aussi changer notre façon de vivre notre religion pour plaire aux autres. Non. La religion, c'est quelque chose de sacré, de privé, de personnel. Chacun le vit selon les règles de sa religion. Chacun aussi doit respecter la personne, comment il le vit. Mais vous ne pouvez pas imposer aux musulmans comment ils doivent parler, comment ils doivent marcher, comment ils doivent s'habiller. c'est de la dictature, c'est de la discrimination. Et je pense que vous êtes mieux placé pour comprendre cela. Donc, ayez un peu de respect aux autres, aux musulmans, aux athées, même ceux qui ne croient à rien, ils ont leur droit. Chacun est libre. Parce qu'ici, il y a un seul juge qui est le juge suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, personne n'a le droit de juger personne. Essayons de vivre ensemble selon les limites. Chacun reste dans, sa, dans ses limites et chacun respecte l'autre. Comme ça, nous pouvons vivre dans, dans, nous pouvons vivre dans un, dans un monde vraiment avec l'harmonie et le respect mutuel je pense que sénégalais yi war nañ ci gën a yeewu yi tamit ci li xew xam ne àdduna bi ci boppam dafa am ñoo xam ne dañuy jàpp ne position bi ñu nekk dañoo war a mën a noot ñeneen ñi imposer leen seeni loi wala fexe ba ñu changé seen mode de vie loolu c'est de la dictature c'est une injustice Chacun peut vivre sa vie comme il l'entend, tout en respectant les autres. Et notre président, le président Smansonko, a très bien répondu à ce petit Macron qui se croit tout permis parce qu'il est le président de la France. Nous, on s'en fiche de la France. Nous sommes des Africains et nous sommes fiers d'être d'être africains. Nous sommes fiers d'être musulmans, nous sommes fiers d'être chrétiens, nous sommes fiers d'être athées, nous sommes fiers d'être euh, des juifs. Parce qu'en Afrique, il y a toutes les religions. Donc nous sommes des Africains fiers de ce que nous sommes. C'est pas un petit blanc là qui vient nous dire comment on doit parler, comment on doit faire, ou bien comment doit, on La religion musulmane reste intacte. Rien ne change. Les règles ne changent pas. Les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Mais c'est clair et bien limpide. Qui veut être musulman doit s'accommoder et accepter les règles de la religion. Vous êtes libre de partir à tout moment. Hein? Ce n'est pas obligé d'être un musulman éternellement. Si vous voulez, vous pouvez partir. Si vous voulez, vous pouvez partir. Personne n'est obligé à être musulman. personne. Mais si tu es musulman, tu dois respecter les règles de, de, de l'islam. Si tu es chrétien, tu dois respecter les règles du christianisme. Et que chacun reste dans sa place. loolu moo am solo nit ku nekk am na sañ suñu gëm lu ko neex gëm ku ko neex gëm dem fu ko neex nous sommes dans un monde libre comme disent les Italiens tout le monde est paese àdduna bi yëpp benn dëkk la ku nekk am na sañ-sañu gëm li mu gëm bëgg li mu bëgg di doxal ni mu ko bëggee tout en en respectant aussi les autres donc Macron vous devez changer votre mode de discussion votre discours vous devez le, le changer on ne plus imposer les Africains ou bien les musulmans ou bien les chrétiens à faire ce qu'ils ne veulent pas donc vive le monde vivent les gens qui veulent la paix. Et espérons que vous allez, dans les semaines qui viennent, revoir votre pensée et votre façon de parler. C'est très important. àdduna bi ñu nekk kenn mënul imposer kenn leen ku nekk am nga sañ-sañu def lu la neex mais na nga respecter les autres foofu lañ toll nekkatuñ ci jamonoy guerre ou jamono dictature ou bien royaume nous sommes en démocratie en république hmm? chacun es libre de prendre les décisions qu'il veut tout en respectant les règles et les lois donc maa ngi ziar ñëpp di wax ne rek lii ci bëgg indi suñ président Ousmane Sonko wax na ci leen ci war wax li mu ci waxoon rek doy na sëkk li mu ci wax rek doy na sëkk euh, Euh, chacun reste dans son coin et chacun respecte les autres. Alors, Gisna Dabah Malik, ce qui est dans le Coran est unique, il n'existe pas dans la Bible. Attention d'amalgame. Non, on ne fait pas d'amalgame. Il y beaucoup de choses qui est interdit dans la Bible, qui est aussi interdit dans le Coran. ça tout le monde le sait. La, la religion chrétienne ne vaut pas les, les mauvaises choses. Je ne sais pas comme nu ma la ko expliquer xam wax la ko ci wolof bokk xam comme français bi demeewul noonu l'islam li muy tere lu ci ëpp moom la bible bi moom la christianisme di tere léegi lañ ko jéem a moderniser sans écho la bible ou bien le nouveau testament je ne sais pas maîtriser ma ko bu baax mais maa ngi dëkk koo xam ne c'est un chrétien ñuy nekk chaque jour li l'islam di tere lu ci bari diine chrétien daf koy tere foofu laa bëggoon wax foofu laa bëgg a wax li l'islam du tere lu bari moo lis moo diine chrétien ñoo bokk li ñuy tere léegi nag ci di bible bi am na ay nouveau testament ak ancien yooyu moom je ne suis pas christian chrétien je ne le maîtrise pas mais ki ma nekkal muy chrétien à cent pour cent di dem tous les dimanches messe nee na ma yu ci bari ci bible bi lu l'islam di tere yu ci bari bible bi seeni loi daf koy tere foofu laa bëggoon waxee ak lu ci mën di am rek li am solo mooy hmm, ku nekk la nga gëm na nga ko gëm chacun mën nga nekk chrétien vous êtes libre d'être un chrétien vous êtes libre d'être un musulman vous êtes libre d'être un athée. Mais l'essentiel, c'est de respecter les autres. Comme nous, nous sommes des fédérateurs, nous ne sommes pas pour celui-là, nous ne sommes pas des, des radicalismes euh, ethniques ou bien islamiques, non. Moi, je suis musulman et je respecte les chrétiens. Chacun, tous les chrétiens peuvent faire ce qu'ils veulent. L'essentiel qu'ils se conforment au christianisme. Moi, je suis musulman, je respecte ma religion musulmane, je respecte les règles et je n'ai pas à dire ou bien à interdire dans les religions des autres. Je reste, j'ai assez de choses à, à, faire dans ma religion que je n'ai même pas le temps de surveiller l'autre qu'est-ce qu'il fait dans sa religion. L'essentiel, c'est le respect mutuel. L'islam dit aïe, lui tu christianisme de quoi mais christianisme comme bi ñuy def ay nouveau testament ancien testament xëy na y a des modifications dans les textes mais l'islam moom changé wu le Coran n'a pas changé il reste intact donc lu bari lu bible bi daan aaye Coran bi da ko daan aaye lu bari lu Coran bi daan aaye bible bi da ko daan aaye maintenant nag comme religion christianisme xëy na dañ koy moderniser di changer yenn textes yi peut-être changement mën na am mais lu bon moom lu bon lu bon moom foo dem ci àdduna bi ñi baax ñépp dañuy bokk di ko aaye moo xam bokkuñu diine wala bokkuñu ethnie mais lu bon moom ñépp ko diine yépp koy aaye ci sama xam-xam bu gàtt waaw kon tabax maa xam Malick maa ngi lay ziar bu baax waxuma pour boole l'islam diine boole bible beeg coran bi muy benn déedéet dama wax ne lu bari loo xam ne diine l'islam mi ngi koy tere diine christianisme daf koy tere loolu laa wax donc euh, defuma amalgam li may xam naa ko bu baax a baax a baax ndax ak ay musulman la te ay chrétien laay yendul chaque jour ñooy yendu waaw maa ngi ziar ñëpp yàlla nañu yàlla musal ci seytaane te defal ñu jàmm